ànd ak sa njaboot gi mu di sa yaboo mm. ak sëñ Modou mm. ñu am taxaay bu rafet rafet rafet mm. ci li nga xamante ni ñu ngi ko sàkkul kii di sa xarit di coloré gu yàgg mu di président Macky ndax euh, bu bu musaan dugg ci dëkk bi te boobu fu bari foog naan du fa dugg baa dañ koy daw sa kër gi lañ njëkk sa kër gi lañ njëkk a dugg kon foog naan loolu diggante bu yàgg yàgg ñoom ñu itam seen taxawaay rafet ci loolu. Mm. ñun ñu itam ngay ngay sunu lépp. Mm. di sunu wajut ñaari wér yëpp. kon mënuñoo nekk ci lenn loo xamante ne bii da lay da ump. Mm. loolu lépp jàll itam nag. ñu am yàqin ci ne. lu ñuy wut. luñ ko diisee sa wajur wa. di sëriñ Fàdilu. luñ bëgg danañ ko am. ndax man daam lu ma ci xam. digganteem ak soxna may ak sa defe naa loolu Sénégal gépp xam nañ ko hmm. ku musa fal ci réew la fal hmm, moo rek itam ñuy sàkku ñuy sàkku nga dim lañu rek falal nu kii nga xam man nga ko ñañaan man nga ko soxna si nee na ma ba fa ba dikkee lii la ko wax nga xam mënoo ko déet neel neel da nga wat ndax loolu sëñ Fallou lu wax da nga wat neel da nga wat ci sa lammiñ soxna ni daa wax ba noppi mënoo ko déet kon nañu ñaan mënoo ko déet neel da nga wat ci sa lammiñ ndax loolu ma sëriñ bi wax loolu mooy sa tontu lii rek waaye daal Mbàkke daal moom daal mi ngi noonu lépp daal mi ngi seen loxo ñun mënuñu dara mënuñu dara xamuñu dara seenu njaboot lañ daanaka dañuy dañuy làmbatu rek kon nag te fépp fu ñu nekk tam yéen lañ fa nekk lépp lu ñu def du yéen lañ koy defal kon nag waxtu wu nekk war nañu ñëw di dellusiwaat ci yéen di leen wax fi ñu toll di di di di di yokkoo ci yéen Euh, moo tax daal tey jii loolu yi mooy mooy tànk yi di santi nag suñu aboo mii ci taxawaay bu rafet euh, man maa noppal ci li def fu bari fu bari duma fa dem waxit daanaka defatuma ndax moom a ko dàq te itam doy na ma ci te yaanu boole kon sa jëmm laa ko jàppe waaye te moom itam foog naa ne du ma ne sa jëmm la ma jàppale waaye xam naa ne bépp cër bu muy jox kilifaam jox na ko ci dëgg-dëgg boole ko ak woyof gu mat sëkk bëggul dara gisul dara xool dara déggul dara wala Mbacke maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di ñaan yàlla rek mu yàggal la fi lool lool lool lool lool yàggal la fi lool jërëjëf Mbacke sant nañ baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf leen sant bu baax ci tànk yi nga dox si ndax fii sa kër la sa kër lépp la baax wa. rawat na sa waajur bu baax wa. ak sa maam ju baax ja sa Mor Moustapha. ñoom nag ñoom yàlla dañoo bindee. nee na ñoom yàlla da leen a bindee. xamuñu politique. xamuñu politique. dañuy ñaan rek. dañuy ñaan rek. ñaan moom ku ne mën na ko. ñaan moom ku ne mën na ko. li li ñu njëkk ñaan li ñu njëkk ñaan moo di. li ñu njëkk ñaan moo di. réew mi am jàmm rek. réew mi am jàmm. loolu mu njëkk ñaan ci àdduna nee na loolu lay njëkk ñaan ci àddina président sama xarit la wax yàlla moom nee na xaritam la lu jiitu tey lu jiitu tey léegi sëñ bi wax na ko léegi nee na nee na booba léegi wëlëre woowa moom la jàpp ba léegi ci moom di ko ñaanal bu baax a baax barke sëñ Tuuba yàlla defal ko jàmm ak ñi mu àndal ñëpp réew moom réew moom jàmm rek moo fi am ndax nee na fu mu toll mi ngi koy wax sëñ Tuuba dafa wax ni sëñ Tuuba la gisul gisul lu jëm lu gën jàmm àddina gisul lu gën jàmm àllaaxira gi ñu jëm ndax àdduna boo fee boo fee amee jàmm boo fee amee jàmm am na da mën a jàmm yàlla da mën a jàmm neen réew mi faw jàmm am fi ndax sa turandoo bu baax sëñ Abdoulaye ndax dafa waxoon ne képp ku fi yéene lu jàmm képp ku fi yéene lu jàmm yow yaa ko yenn yow yaa ko moo ko waxoon ñëpp di ko dégg la ma waxoon ba léegi mi ngi dox kon nee na ngi leen di ñaanal yàlla defal ñu jàmm barkeb Sëriñ Tuuba Sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy Sëriñ Tuuba yàlla yàggal ko fi ak njabootu Sëriñ Tuuba Fallu yëpp nee na kaddu yi mi ngi koy jéggalu ndax ñoom dañoo am kilifa muy Sëriñ Abdou te ki mu jox wàccuwaay kër kër gi muy sëñ Abdou Fatah di kaddu kër nee na da wax lu baax mu tontu la waaye jëlu ci kaddu kenn <laughs> nee sa diggante moom rek ci la wax ak ak mu àndal di leen ko seddal kon jërë ngeen jëf yàlla yàlla defal jàmm jàmm jàmm jàmm jàmm barke sëñ Abdou Fadal jërëjëf